dundam ci jaar jaaram comme ne ko commencé woon première partie tey ñu ci deuxième partie waxoon nañu leen ne eh, mam ousmane may nañ ko mam fawad wele eh, yàlla dogal na xam ngeen ne denc gi mam ousmane denc mam fawad ak ñaan gu nangu la ñaan la goo xam ne yàlla gàntalu ko kaka ñaanoon te ka da caa dogu muy Cheikh Omar Fouti rahimahullah Cheikh Omar bi mu ñëwee Banji Gara yàlla dafa dogal Fuuta yëpp bañ ko déggee danoo fàq ñëw fa ndax booba tariixa bi tasaaroo na ci àdduna bi rawatina Fuuta Waalo Saalum ak benn benn ci Kajoor ak Jolof ba Njaambur mag ñu bari nag dégg ko ci dëkk bu naan Orafonde ñu dem di ko seeti booba famille boppam yi bi dikkee dana ko tax ñun dañoo foogoo ne dangaa ngaa faatu da dee mu ne déedéet deewoo de maa ngi fi ba léegi eh, am na sax ñu ne def ne leen man du ma dee ndax su may dem danaa fi ba sama bopp kon man du ma dee bi mag ñi déggee ne ma nga foofa nag mag yi nekkoon ndóofaan mooy gaaya ne dañ koy seeti jël ci moom tarixa tiijaan délégation bu bari na lool matoon na juróom-ñeenti nit am ñu ne fukki nit ak benn waaye délégation boobu càmmiñal maam faa wadd wele ci la bokkoon muy alfaahima yoro wele mi bokk ak maam faa wadd ndey ak bay jëloon na am mbaamam sëf ci lépp loo xam ne nii bu kilifa diine da koy soxla ci yére ak dund pour defi ko àddiya yuti ko Cheikh Omar siyaaree ko ko laaj ko tarixa bi ba mu demee ba war a dem nag tàggu na ab jigéenam muy fawaat ne ko man de damaa jóg yoon dañoo bëgg a dem Orafonde ndax dañoo dégg ne nitu yàlla bu baax boobu di morom may ga di morom may gi di Cheikh Omar ma nga fa ñu ne dañ koy seeti délégation bi nag xaw naa ko mu man calaa wax na ne maam fawaat def na ko est-ce que du ngeen ma may ma àndaale ca ndax de am naa sama soxla si bopp te kooku rek kama ci doy ni ma koy géej mu ne ko yooni moom doo mën a dem ndax ñun góoru kese lañ fukki góor ak benn jigéen mu mënu caa ànd soo amee daal looy yóbbante wala looy soxla bu la neexee nga joxam bu dee yóbbante la bu dee ay wax la nga wax ma xam naa ne bu suñ bëri ñeentee naa ko jox li nga ma jox te danaa ko wax li nga ma wax loolu la ko moom alfahima yorowele wax mu ne kon baax na bala ngaa dem danaa fa ñëw maam fawaatu dem ci walisam ubbi ko gis ca yére ba mu gën a bëgg ba ca gën a cher benn tiise bu foor bu cher bu rafet mu lem ko def ci mbuus ñëw ba ci maam alfahima yoro càmmiñam ne ko lii de daa bëgg nga joxal ma ko sëriñ boobu nga jëm ne ko sama xaddee ci moom mi ngi noonu nee ko nag na ma ñaanal euh, euh, bëgg naa am góor gu baax gu ma téyel sama diine bëgg naa góor gu baax gu ma sàmm ñag ma protéger lii mooy yóbbante maam Fawad ca Cheikh Omarul Fouti yàlla dogal ñu dem ba ne ba ci buntu Orofondé du waa ñi leen ñoom ñu jóge woon gaaya wala fu jël lu bëri ci leen yore woon ba nangu xaalis séer bi maam Fawad yóbbante woon ah wàccee leen la des nag. am ñu ne déedéet euh, duwaa ñu jàpp ñu leen waaye bagage yaa diisoon kenn ku ne ñu am lu ñu jël kenn ku ne ñu am lu ñu jël ci li nga yore ñu jaay ko jënd aw loo sëf ci bagage yi yóccu Seex Omar muy ñaari riwaay riwaaya bagage yéen jaay nag ñu ne cër cër fawaat dafa ca la bokk am ñu ne déedéet duwaañ yeen nangu la ëpp ci seeni bagage te lan nangu cër fawaat woon maam wele ba ci la bokk loolu mooy ñaari riwaaya yi ñëw ci histoire bi yàlla dogal na bi ñëwee ci maam Cheikh Omar àdduna bi yépp a ngi fax ñëw fii dëkk par dëkk lay recevoir di leen jox tarixa bi di leen ko tasaareel ba waa gaay ak si sës mu recevoir leen toog ak ñoom ñuy waxtaan ak moom ndokkeel ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ñoom it sàkku ci moom ñaan ak tarixa bi ku nekk di génn la nga amee di ko jox di ko ziyaar moom Cheikh bi ñëpp siyaaree maam Ousmane maam Fawad maam Alfahima Yoro mi càmminal maam Fawad raam ba jege ko làmb ci poosam moom Alfahima am lu mu dindi jox góor gi ne ko sama jigéen ba ca kër ga de moo la ko jox nee na nga ñaanal ko mu am jëkkër ju baax ju am diine ju ko yor Cheikh Omar ne ko oh déedéet déedéet. la ma jox du lii demal yoon ma la ma jox man duma jël lu ma moomut li ma jox du lii demal yoon ma la ma jox ah kon xam ngeen ne kon nitu yàlla am na waaw kas fa am na fatxu am na faydu am na kon lu ci ne ak na ko yàllay mayee jaam bi maam alpha xam ne nag waajaa ngi dañ dëpp gaa ji nga xam ne mënoo def lu ko umb mënoo ko nëbbu dara te mu yeb jaam kii yàlla séet ko li wax ci moom lépp gis na lu ko raw ci la génne ma mam mam alfahima yoro wele dellu ca duwaañ ya naxante ñoom ban jaayaat ku siir ba mu jëndaat séer ba ci duwaañ yi moom alfahima dikkaat sukk ci kanam Cheikh Omar ne ko bicc séer Cheikh jël séer bi teg ci poojam di bës di raay lay ni sànni di napp nappal waaw kay lii laa moom ne ko alfa mu ne ko labayka mu ne ko santal yàlla da nga am jarbaat bu yombut de jarbaat sa jarbaat bi danga am jarbaat bu jafee am jarbaat bu yombut du muy jarbaat boo xam ne lu kum neex am ko alfa mu ne ko labayka mu ne ko neel borom séer bii waxuma la jëkkër ju baax waaye dana am doom ju tudd Malik fa sayaati Malikun doom ju tudd Malik mu ne ko alfa mu ne ko labeek mu ne ko doomam jooju tudd Malik fii ma yem man Seex Omar fii ma yem nii ci orofone moo fiy déparé ba ca doj wële may seen ca ngor doj wële may seen ca ngor fii ba foofa moo fi lal mbalaanam naasiril xaq bil xaq te jaasi du jib fetal du jib man nag lu ma def jaasee ma ko may ak fetal moom nag dana déparé fii ci Orofoode ba dëgg wa ca ngor tàllal fi naasir xaq bi laa xite jaase ju jib baltu tàkk lii la maam al maam Cheikh Omar ma yoro ci kanamam te booba maam Pawadd seet bi mu yóbbante boroom kër lay ñaanlu ñu far ko fixeel doom wax ko na doom jay mel ak la muy doon pare maam maam Cheikh génn na benn laykat kasse ko teg ko ci loxo alfahima yore beneen ne ko lettre bi dencal ko ko bis bu ko waree jël dana ko ko jël te doo ko jox ndeke lettre ba ijaasa moo ci nekk ak bàttale Cheikh Ahmada Tidiane yi bu jaaroon ci Cheikh Omar ba ñëw ci Cheikh Alxaaji Maalik loolu la mooy li ñuy tuddee alxilaafa tijaaniya ñu koy tuddee xalifa général dootul nekk lu moy ci njabootam ak ñaan la yàlla nangu na ko jeex te yàlla du nangu maye tax tijaan yi mën nañoo bari kilifa yi diine yi mën nañoo bari waaye xalifa général des tijaan déedéet kër alxaaji Malik rek loolu ci liggéey Cheikh Omar la ci ay mbirum la te it moom it dañ ko ko ko bàttali rek mu bind ko ci këyit kasse ko ijaar Cheikh Hadj Mal ne ca te juddoogul ganeegul àdduna mu ne moom mu ne maam Alfa nag bu ko sa bët gis te bu ko ubbi dencal ko boroom su waxtu wa jotee dana ko jël kon lii mooy dajeel maam Alfa ñoom ñib si nan maam Fawad duñ seet si ko ne ko ne ku seen yoon def nag alhamdulilah sant nan yàlla waaye day ki ma dajee kin dajee di wàlli la mu ne ko ah, mu ne ko wàlli la loo xalaat ci moom romb na séer bi de àggutoon damaa dem rek mu ne ma indi ma suma séer man séer lan ma joxoon ma dem naxante ba jotaat séer bi jox ko am na lum la dig nag nee na nga sant yàlla te xam ne dana agsi maam faawa de bañ a dañ kumpa wóolu wax ja la laajut lañ batut gëm loola bàyyi loolu moo tax ma ne la li waral maam Ousmane jógee gànnaar ca ma ànd baab jaar culoñ ab téere kott tax kaa jógee culoñ ba ñëw gaaya far mu xamanteeg Cerno Ousmane ban may ko maam Fawade Weli mii ñoom ñaar ñu war a bokk jur alxaaji Malick kon ñaanu Cheikh Omar gaa ngi noonu jigéen baa ngi noonu gis nga fi yàlla jaarale Cheikh bi kon nag nii la demee wax naa la maam Ousmane bi muy dem jógee foofu ci gaaya wàcc fa soxnaam mi ngi ci ñetti weer ñu ñaari weer dénk na ko góor gi mi ngi ci sa loxo su juree góor tuddeel ko sa bopp ndax yaa ma dalal yaa ma abal téere bi yaa tax ma jot ci jox naa la tur bu dee am na doom muy jigéen nag tuddeel ko sama yaay muy mëtti mbàkke Fatimata mbàkke ñu naan ko mëtti mbàkke yaayu maam Ousmane bàyyi alxaaji mbàkke ah maam Ousmane waxtaan naag soxnaam ne ko maa ngi dem teg naa sa loxo ci loxo góor gii nga xam ne la yilif yilif ma maa ngi dem nag ci kër ga xooli nu bindoo ñu tàggatoo waxtaan dénkante ñaanalante yàlla maag Ousmane xëy takki bagaasam wut si da jolof ci jolof ci biir jolof mu jëm dëkk bu ndan siin e, bi mu siin dafa ñaari weer nawet ak mu fekkoon ci dëkk boobu ñuy wax siin booba ay ceddo muy dëkk bu doy waar damye yoote carte tux rekk a fa xewoon dëkk bi lëndëm lool moom Ousmane indi xam-xam indi njub indi ragal yàlla indi mbaax fas fas yéene nag ne li ne ci dëkk bi dina ko fi jële ci xam-xamam ak technique commencé wax guddi commencé wax bëccëg ah mag ñi di ko commencé jëw ne ah kii nag na naa yàq suñu dëkk bi ndax ñun lii ci la ñuy tedd ci la ñuy am teraanga boo dikkee bu ko indi dañuy torox bu ko fi ba léegi dee dañuy torox ñun mënuñoo ñàkk def lii ñuy def ñu commencé ko bañ commencé ko xeex commencé xam nga nit ku kuréel ci caay-caay ak mbon bis boo ko ci bëggee jëlee rek di noonam ca la noo commencé noonu góor gi. ba am ñu waxtaan ne nan kompaloo ilmine ko am benn doomu aadama boo xam ne day làkk moo ne man de lenn mën na ne mën naa koo rey de te bu bu ngeen ma wéeru bu ngeen mënee téye seen làmmiñ de man mën naa koo rey ñu ne ko loolu ci yow la des ndax ñun lu mën a am loolu ñu ko gënal lay de sax yàlla dogal muy ji dem àll ba am na genn daqaar ci siin koo rono rek ndeke waa ji fajaru na fa ki am yéene gaañ ko lor ko yor ay fettam tooke ko ba mu yor mu yëg ci kaw daxaar ga di xaar mu rono daxaar gi rek ndax yoon waa ngi ci roon daxaar gi ba ma Ousmane fajaroo di dem tool ba romb daxa bay bëgg romb daxaar gi bu ko jub rek moom mi ci kaw jàkkaarloog moom góor gaa ngi dox ci yoonu ci suuf rek mu lare ko xëy ñu ne fet te lépp am tooke mu lare tànk yi ñaari fett yëpp dugg ci tànk yi góor gi sukk daanu moom mu wàcc daw dugg ci njëmbam ak àll bi góor gi xëcc xeej yi ak fitna mu dagg si ci tànk yi te booba faj yombut nga xam na loolu yàgg na faj yombagul Maodo ganeegul àdduna ah mun lu may takk ci da ay daq xobi daxaar hmm? laxas affaire bi dem ba xaw a gëmmu yàlla si taw mu ragal a dem ci tool yi pour tawte demul tool xëy toog ci dag yi ba jant sun nit ñi ñëw mu ne waaw lu tool yee def mu ne alxa ñu ne ko alhamdulilah mu ne waaw lu ngeen déggee ci man ñu ne ko nee na da ngaa yaafus da bañ a dem tool da bañ tàng ay góom ci tànk wattatee góor dem tool jom ja commencé feeñ ak jikko ja ak dignité ba mu xëy rek laxasaay dem tool far yàlla dogal mu tawte ba mu tawtee nag góom ya unni ca la tànk ya nëwee toj ca la ko yàlla moom mu faatu ci loolu moom maam Ousmane rahimahullah ñu denc ko foofa ca siin ma nga ca arme ñee tëdd tey moom ak yaayam ak ki mbokk ak bay di ahmed si kon mom alaj malik bay fatuna faatu na mi ci biiru yaayam mu mel ni la dalal yonente bi dal nak ko foofu nag boo xoolee ak xaajumaan dafay bëri lum niroog yonente bi maanaam yonent bi alayhi salaatu salaam gisul baayam mi ngi ci biiru yaayam baayam faatu Sëriñ Malik gisul baayam mi ngi ci biiru yaayam baayam faatu Seydi Xaaji Malik yonent bi alayhi salaam dëkk bi mu juddoo tàkkewu fa Makka la juddoo waaye Madina la amee fattu ba am li bëgg Sëriñ Malik Tiwaawan la gaaya la gane àdduna fa la juddoo waaye Tiwaawan la amé fatfu fa la tàkkee ba am li mu bëgg ci diine ak ci tariixa bi gis nga kon nirwaan na fofu ma yonent Yàlla Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam euh sëñ Hajji malik premier khalifa xalifaam Aboubacar la tuddu muy sëñ Babacar Si yonent Yàlla Muhammad premier khalifa xalifaam Aboubacar la tuddu gis nga batay tey nirwaan na fa yonent bi yonent Yàlla Muhammad bimu faato faatoo doomam bi ko njëkk a fekki Fatima la tudd te ci six mois la dem Fatima bint Rasul moo njëkk a fekk yonent bi te ci six mois la dem xoolal yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam doomam bi ko njëkk a fekki mooy soxna Fat te six mois di gëm ak Seyda Aji Maalik lañ mal daa dem six mois mu fekki ko gis nga ba tey yàlla mbiram Seyda Aji amul kenn kum bokk ngay ak bay amul kenn kum bokkal ndey ak bay waaw amul yonent Muhammad amul kenn kum bokkal ndey ak bay sallallahu alayhi amul kenn kum bokkal ndey ak bay kon nag mbir maa ngi noonu kon gis nga lu bokk day niroo fa tasabbahu in lam takunu mislahu inna tasabbuha bil kiraami rabaahu kon lii mooy niroo wat ca watit wallaay ndeysaan mu niru ko ci boor yépp nag ba ci feeñ bi euh, kon mu mel ni góor gi faatu na muy mam mam Ousmane mam Alhaj Malick gane àdduna 1853 mooy date bi gën a siiw 1853 mooy année bi nga xam ne ci la fédéral bu samp raay bi cent 1853 gannaaw ba bàyyam faatu euh, mu juddoo ci dëkk bu naan gaaya kon gisul bàyyi ji rahmatullah alayhi ndax bàyyam fanweer at rek la dund yonent yàlla Muhammad bàyyam fanweer at rek dund waaye gisal yonent yàlla maanaam yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam bàyyam guddul fan seen Hadji Malick bàyyam guddul fan ba tey niru na ko loolu kon Maodo judd na ñu doxal ndénkaani ba ba mu dénkaane woon ne bu juddoo nañ ko tuddee Thierno Malick Sow maam Thierno Malick ca gaaya jël woowu tur jox ko ndénkaane ba la wéer kon Maodo gane na àdduna ca gaaya ci date boobu ñu la wax eh, ne ci loxo yaayam faawaat wele diggante yaayam ak najaayam alfahima ak turandoom Thierno Malick Sow mu jàng nag alxuraan bi mu waree dal dal alxuraan mu dal ci najaayam alfahima yoro wele alfahima yoro wele jàngal na ko turandoo yi mi jàngal na ko alfahima yoro jaxate jàngal na ko kon maamam yu góor yi maam bi ñu wax maam demba bunna si maam demba bunna mooy muhaas ay njabootam nii ngi nii Demba Bunna am na juróomi doom yu góor ñëpp ay sang lan ñëpp ay garmi lañ ka ca mag mooy Cheikh Ahmed si benn ak Cheikh Abdou Khoudia si ak maam Makhtar Penda si ak maam Makhtar Fatim si ak maam Ousmane si ñii ñooy waa kër maam Demba Bunna li nga xam ne mooy maam ci alxaaji Malick si ndax woykat ba naan sëtëb Demba Bulla demal xeentu sunna lu dul sunna bon na lu bon bul ci jëm kon sëtëb Demba Bulla ko kon maam Demba na mii nga xam ne moo jur maam juróomi doomi góor yàlla joxoon na ko ko wax naa la ko muy Ahmed si taaw bi Ahmed si bii bàyyi na ci alxaaji Malick mooy bàyyam bu ndaw dana leen wax moo laajoon sax mu fekk si ko Jolof sëriñ Babacar si moom la tuddee taawam Ahmed si bii euh, maanaam Ahmed si bii moom la Seydi Maalik tuddee taawam Ahmed si ak Abdou Khoudia si maam Makhtar Penda si maam Makhtar Fatim si Cheikh maam Ousmane si mi nga xam ne mooy bàyyi ci alxaaj Maalik teel laa faatu nag moo jiitu maamam moo jiitu magam yi maam Ousmane moo njëkk a dem ñii ñii ko mujj gannaaw maxtaar penda moo nekk siin maxtaar ak abdu xujja ñaar ñii nag ñoo bokk ndey ak bay ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak maam maxtaar penda ak maam abdu xujja si ñoo bokk ndey ak bay ahmed si ak maam ousmane ñoom ñaar ñoom it ñoo bokk ndey ak bay kon nii la tëddee kenn ki di maxtaar fatim moom moo bokk te ñoom ndey mais ñoo moom ñoo ma bokk benn bay moom juróomi doom yaa ngi noonu si mi ma la njëkk a tuddal maa ngi lay wax ñim jur Ahmed si magu maam Ousmane Baye El Hadj Malick si moom moo jur ku nan Mamar Khoudia si ak Moustapha si ak Mbacke si ak Sayer si Jaara ak Mahmoud si ak Mor Njooti si ñi day ñooy waa kër maam Ahmed si waaw Mamar Xujja si mooy borom mbir kilaam ak Koundaan Moustapha si ak Mbàkke si ak Sayer si jaara Sayer si jaara lañ koy dàkkantale ak Mahmoud si ak Moor Ndiosi si bu dee doomu jigéen yi doomu jigéen yu Ahmed si maa ko maam Ousmane Baye Alaaji Malick am na doom bu tudd Xadijatu si ak Fatimata si Fatimata ñu naan ko Fatimata Demba ñooñu waa kër maam Ahmed si leen Fatimata Demba si Fatimata ñu naan ko Mati Demba ak Fatimata Xujja si kon ñetti doom la Xadija ak Fatimata Fatimata si ak Mati Demba ak Fatimata waa kër Ahmed si. magu maam Ousmane bàyyi alaaji Maali euh, boo ñëwee ci waa kër maam Demba bu waxoon naa la benn doom laa la tudd Ahmed si njabootam maa ngi lay ñëwal ci Abdou Khoudia Abdou Khoudia si mi nga xam ne doom la ci maam Demba bu na Abdou Khoudia moomu moo jur Serigne Mor ma jigéen si ak fer koddu si fer koddu mi mo jur bay basiru si borom mirina ci dara jolof ak ku nan baba be si ñet ñi ki ne ki sen bay moy abdou xujja si kon ni ne wa ka mam abdou xujja li nga xamne do mam demba buna la ñettelu do mam demba buna moy mam makhtar pend si mam makhtar pend mooy borom Sine Maxtaar mooy borom jinne yi moo na njaboot ci jinne yi moo jur nag Ahmed Binta Sy ak Mor Amina Sy ak Abdou Binta Sy ak Mouhamadou Binta Sy ak Baba Fa Awa Sy ak Ousmane Fa Awa Sy ak Mor Xëri Sy ak Malick Bassine Sy ak Mahas Sy ak Alioune Abi Sy ak Baydam Sy ak Maxtaar Ceebu Sy ak Ibra Ceebu Sy ñii ñooy waa kër maam maxtaar penda bu dee jigéen ña jigéen yi nga xam ne maam maxtaar penda moo leen jur mooy awo si faati ali si xadijatu si baatin si atta si faat bintu si ñii ñooy waa kër euh, maam maxtaar penda ci wàllu jigéen kon gis nga ak ku naan kamara si ak mariem si ñooñu la am ci ay jigéen moom maam maxtaar penda Bodi dikke nak ci benen mam bu tuddu maxtar fatim si maam maxtar fatim mom mo gën mom lañu lañ min ci njaga si ay domam moy mahmoud si mor amina si majob si ahmed si mahmoud si mor amina si mor amina si xam ngeen ko ca dekk ba de ca kër ak majob si bu dee ceer doom yu jigéen ya yu maam Maxtar Fatim ku mel ni Anta Sorong si ca la bokk maam Anta moo jur Seex Mor Anta ak xari Fatim si kon ñii ñooy waa kër maam Maxtar Fatim boo jógee foofu nga ñëw ci caatu maam Demba Bunna di maam Ousmane si maam Ousmane mii nag dafa teel a faatu amoon na doom bu jigéen mi ngi tuddoon matt Si matt Si moomu yaayam mi ngi tudd Soxna Mati Ñang na Mati ñan kon mooy ñaareelu maam Paa Wàdd Wele mooy wujju ci maam Paa Wàdd Wele Mati Ñang mii nag yàlla dafa dogal bi ko maam Ousmane dencee amoon moom benn doom bu jigéen muy Fat Si euh, yàlla dafa dogal maam mëti bi maam Ousmane génnee àdduna waaw maam Ousmane di génne àdduna daf ko bàttale ci sëriñ bu soobee ne ko su ma génnee àdduna dénk naa la ko yaa ci doy biir ak giti sëriñ bu soobee yàlla dogal bi nga xamee ne maam Ousmane génn na àdduna ba soxna Mati Ñang ténj ko ba jeexal ci la ko denc moom sëriñ bu soobee bi mu ko takk dencee amna ci ku nan awa busa awa busa mom lañu jël jox seexu khadim mo am ca sëriñ fàllu mbàkke radiallahu taala anhu kon nak mo ngo waaw maam usman bayina na soxna sunan mati ñang am ak mom ben doom bu na bu aduna nan jox mati ñang serigne bu soobi sëriñ bu soobee bi maam Ousmane génne àdduna ba soxna Mati Tenji ba pare ca lañ ko dénk sëriñ bu soobee mu am ca benn doom bu jigéen bu naan awa busa ñu jël awa busa jox Seexul Xadiim mu am ca sëriñ Fàllu Mbàkke looloo tax sëñ ab Aziz Dabakh daa wax ne tuuti sëñ Fàllu Mbàkke daa wax ne tuuti kon ma sant si tuuti kon ma sant si waaw kon gis nga mbokki yi ngeen teg seen baaraam foofu ba ëllëg ak jàmm seen mbokk sas Birane Salam bu Daara Jolof 77 389 81 10 asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ba ëllëg ak jàmm.